man su ma mënoon damay toog xam naa lu yàgg du ngeen dégg sama baat li ñuy wax minute de silence mais comme minute de silence baa ngi ci xol bi pour ne pas trop vous retarder euh, c'est pour vous dire que décision extrême et responsable bi suñu client Ousmane Sonko jël tey ci suba fexe ba ñun avocat yi ñu yëg ko euh, ci loolu la sama xel nekk sama xol ak ñun ñëpp nekk ci ñun tiis nekk ci ñun njàqare surtout que depuis bi nouvelle boobu commencé propager on apprend que dans la plupart des bien dans la totalité des maisons d'arrêt du Sénégal détenus yi rejoindre nañu mouvement grève de la fin boobu c'est une façon de vous dire man personnellement parce que duma ma engagé keneen yàgg naa défendre ay doomu aadama mais ki may défendre nii saa yu ma yeewoo rek damay ne alhamdulilahi rabil alamin euh, wolof wolof day wooyee avocat layookat mais définition dëgg avocat ci wolof mën na nekk farandoo avocat dafay far ku nekk ak sa bàmmeel de yaa xam ki ngay faral parce que bu dee da nga gis nàmpeex di ko faral li topp nàmpeex boobu moo lay topp yow et le châtiment de la tombe xam nañu mooy lan mais bu dee idées yi muy défendre yana ko bokk ah, yaakaar naa ni mën nga dem jusko bout tey jii ñu ngi xeexal Ousmane Sonko pour la préservation et la défense de ses droits fondamentaux parce que xam nañu yoon bi mu nekk ci njëriñu Sénégal comme démb ki fi nekk tey jii Macky Sall bi ko yàlla joxee nguur gi dañ ci kontaan jàppale ko ndax yéene bu ñu gisoon ci moom tey jii yéene bi ñu gis ci Ousmane yàlla na ko yàlla mottali yàlla bu yaakaar tas mais bu ñu demoon ba gis leneen ñun kenn moomuñu man du ma avocat bu ancien trop mais bi may prêter serment Ousmane 14 ans rek la am donc tey jii bu ma demee ak 35 ans de bar mu ngi ci 49 ans dem ba man mu jaral ma lu ne c'est parce que ki convaincre na ma parce que gis naa lu ne balaa moom. gis nañu lu ne parce que ñun yàlla dafa def dañu prêter serment commencé génn Afrique on a fait pratiquement tous les pays de la sous-région ak beaucoup de pays de l'Afrique centrale dem nañ ba France bitim réew Belgique fu nekk la haye tout ça gis nañu lu ne. Pour vous donner un petit exemple, c'est mon premier voyage d'avocat, jeune, tout jeune avocat, c'est mon tout premier voyage. dama dugg avion bokk avion ak Sidiki Kaba mu ma booy looy def fii ma ne ko suñu dëkk bële laay dem gars yi ñoo ma woo ma dem défendre leen mu ne mais tiens man tam fa laa jëm parce que FIDH ñoo ma fa yónni ñu dem bu ñu àggee ci dëkk bi di def li ñuy wax euh, visite de courtoisie yi ci bâtonnier parce que avocat boo ñëwee ci dëkk da ngay dem nuyu bâtonnier bi toujours dañu ñëw ba ci buntu bureau bâtonnier bi. Sidiki Kaba avocat bu mag la tawaatukaal mu ne ma gis nga photo bi may gis ci bureau bâtonnier ma ne waaw mu ne ma ñun dañuy tere bureau bâtonnier wala bureau avocat posteeru président de la république nekk ci parce que ñun nous exerçons une profession libérale indépendante mu neexee nga def beneen photo mais photo président de la république amuñu lien organique ak fonctionnel ak état donc ñun waruñu dugg ci bureau bi bâtonnier bi am jàqare loolu waa du ngeen ñëw ñu ne baax na procès boobu ñu demoon

ñooñu ñëpp tey jii dépassé nañu tey suñu njàqare mooy li ñu dund ba Ousmane dund ko ba tey jii mu jël décision bi neen day def grève de la faim Ousmane cinq jours dañ ko tëj këram ci ay barricades te teguñu ko fenn muy góom bi nga xam ni man de personnellement gis naa ko Nigéria may ab Abiola quelques jours gis naa ko boobu bëgguma tudd tur yi am na dëkk yu mu am gis naa ko dund naa ko euh, mais li ñu gis Sénégal dafa réyoon ba nga xam ni dañu fonk doomu aadama fonk dégager du champ vraiment du harcèlement politique famille bokku ci la famille est sacrée tout comme le domicile il est inviolable il est sacré mais fii la ñu gis ñu tëj kër tëj nit ki ci biir kër gi tëj jabaram tëj doomam bi léeg ñu dagg courant bi léeg ñu coupé ndox bi léeg ñu coupé euh, communication internet ñu ko gën a jege mënuñu ko gis mënuñu sax wax ak moom téléphone mais señ bi loolu métti na et puis deful benn réaction au Sénégal comme quoi a parce que loolu yeneen dëkk émeute la indi Euh, Zaïre bi euh, am na beneen Congo bi mais ay coow lay indi am na Centrafrique mais fii nit ñi dañu ne teg parce que lu ñu wax sénégalais dafa dal e dal nañu muñ nañ ko mu metti na ku ci nekk gombo moom ah personnellement de ku dee nit parce que koo xool ci yow ñu ñu def la nii sa kër problème bu mag am na bref lii yëpp am na indi ay naqar yu metti barricade yi tey le 30 juillet le 30 mai Youssou Camara mi door a wax léegi maa moom ñoo bokkoon oto on a été waxuma gazé mais li xew jarul ñu koy wax par dignité soxloo ñu ci dellu mais ñun xam nañu man personnellement xam naa parce que yàlla moo bañ rek mais tey jii heure mënoon nañu wax y'a deux mois jour pour jour lii amoon na fii te ñu ko def ñoo ko tey teyeef la woon pour vous dire fi ñu toll parce que ñun suñu waay lañu magistrat ñun ay ñun ñoo bokk njaboot bi benn lañu moo tax lii ñuy wax ni waxuñu ko pour magistrat yi parce que magistrat yi li leen war a wax xam nañu toujours ñu wax leen ko ci biir prétoire bi ce que nous le disons toujours c'est que nous nous battons pour une magistrature libre et vraie la magistrature la vraie magistrature qui est debout qui assume qui fait très bien son travail et qui est payé pour faire ça d'ailleurs et inchallah ñooñu on se comprend parfaitement amuñu benn euh, problème ak ñoom entre avocats même chose dañuy liggéeyandoo ñoo bokk lépp bon problème par à tout ça li ñu waxal mooy peuple bi mënuñu toll ci moment bu mel ni mel ni dara amul parce que Sonko bi ñu ko barricadé këram teguñu ko fenn amul këyit amul dara parce que booy bari booy def assignation à résidence d'ailleurs man li du ma assignation à résidence dama ko woowee assignation à résistance nit ki dafa wootee résistance nga ne akoon ah kaa ñu assigné la yow dootoo résister parce que li ñu koy toppee yëpp di ay appel à l'insurrection Appel à la violence, c'est des appels à la mobilisation. Il a un appareil politique, machallah, qui marche très bien. Il a beaucoup de monde derrière lui. Il les appelle constamment à se mobiliser. Appel à la mobilisation. moom la fi Macky Sall def contre euh, Abdoulaye Wade à l'époque dafa daan reetaan bu déggee yi Macky di wax ne wooy mu ngi wax rek dégg ngeen xam na ni loolu en tant que juriste loolu appel la mobilisation la il a un peuple derrière lui il a des forces euh, coalisées pour jàppale ko mais il les appelle à buté dehors le président de la République du loolu du saaga du insurrection du dara boo civilisé xam luy démocratie mais président dañ lay génnee sa gàlle am pexe ah maa ngi leen di xaar bu ñu naa leen coup de pied nga xam fële ngeen di dal mais c'est comme ça la démocratie ñu avancé mais bëgg ko def ay dossier denc ay woy ba ci woyu joolaay Sonko binaa la yooyu yëpp léegi ni ñu ko bëgg a def ay acte insurrectionnel mais attention on a un gros problème te problème boobu foog ñu réglé ko mais ko bëggee réglé nii c'est pas bon démb ci bureau doyen parce que bi ñuy def réquisitoire bi yëpp je ne viole pas le secret de l'enquête mais on nous a dit que pare nañu doyen yéen rek xaar dañuy inculpé ñu ne bismillah ñu bàyyi li ñuy def yëpp ñu dem fa la ñu nekk bee sonn bërki démb aussi yow man assura bi ñuy jàpp Sonko fa la ñu nekk mais doyen xalaatuñu woon ni bu ñu koy saisir di ko désigner ce serait pas avant lundi mais donc il nous a dit lui-même que dañ koo woo dañ ko réquisitionné ma xaar ñu dem ñu toog di xaar bi ñu demee xam ne ñoom mbir bi mënul pare mu wooñu ne kon demander les renvoi ñu ne ko ñun ñu demander renvoi yow nga wooñu mais jëlal sa responsabilité jëlal sa responsabilité nga ne yow yaa renvoyé ñun demandé wuñu on est demandeur à rien du tout yéen ñu tëjee suñu kër violer tu nos droits jàpp ñu ci façon bi ak benn ndaw bu nekk mission occulte parce que c'est très grave li xew le moment venu daañu ci parce que mission occulte gendarme yi ak homme de sécurité li ñuy wax mission occulte mooy yow nga yore téléphone di téléphoner di di filmer nit wala caméra parce que il y a des textes qui organisent la section de recherche par exemple la personne qui travaille la section de recherche elle est habilitée par des textes pertinents ay décret nu ñuy suivre nit ak noo koy filmer noo koy photo noo jël ay renseignement ci moom ak njabootam s'il le faut mais soo koy def waroo feeñ parce que soo feeñee tu es te mënatoo nekk agent de renseignement donc yow mën nañ la sax poursuivre pour pour euh, incompétence mais nga ñëw nit ki mais sonnal ko huit di ko photo di ko filmer di photo jabaram di photo doomam di ko tooñ di ko def ma tey mais attends Ousmane dafa nekk nit ku civilisé ku xam valeur leeru doomu aadama mais mënoon na def lu gën a doy waar mais que dafa xëcc téléphone bi tout ça non yooyu ay clause de style la dafa am ay personnel de sécurité yu mu àndal ñoo ñoo def seen liggéey jël téléphone bi te liñ ko laaj laajee c'était pas jaab ñëwal nga ñu nga téléphone bi nga dindi sa yu salté yi effacé ku ñu delloo sa téléphone rek ñoom wax nañ ñu dee démb ñun loolu rek lañ doon xaar soo ko dañ doon xaar sax moo fëkkal seelu gaañ benn muusari ñu ñëw jàpp mais jàpp bi ne du yomb il faut ñu def attention parce que lundi dañuy dem lundi suba la yàlla rek a xam ah li am de ñun nous sommes à la disposition de la justice et de la loi war nañu suñu client daañu dem incha allah wuyu ji li am nag lu war a am rek mooy am parce que lu mënul am da fekk binduñu ko ci téere bind nañu lépp ci téere yow mal assura bi ñu ko téye muy le dixième jour mbir la cinquante cinq dix la mbir la ba moom yaa des moom il est né sous le te yàlla nañu dix bi jik mu doon deux mandats de cinq ans mu def fi dix ans xëy na sax daañu ko téye boobaa gawuma ko mais mën na am ñu téye ko mooy loolu léegi nag euh, yow mal assura xam nañu ce que c'est ay jullit lañu bu ku dul jullit xam nga ndax religion yëpp ñoo bokk loolu dixième jour am na lu mu doon man de Sonko personnellement numéro 10 laa ko yooyee ndax man mooy suma numéro 10 léppam c'est sous le signe du 10 te loolu 10 bi 5 ak 5 la macha allah xaw ma nag lu yàlla def moom rek moo xam waaye suba tam xamuñu luy am mais délit yi ñu dajale du délit parce que cinq ou 6 ay crime la ça ne donne pas une grande large euh, marge de manœuvre au juge li muy def moom moo xam réquisitoire bi xaar nañ ko ba guddi jotuñu parce que paregul ñu mu doon lu woyof pour Sénégal pour ñëpp parce que jàmm proche jàmm Sonko mooy suñu jàmm ñun ñëpp wasalaam loolu la amoon lu may wax bañ de la parole je vous